Oh. eh wat naa ñaari waxtu tisbaar ak takusaan oh koor gi métti na de métti na lool dama faat ñaari waxtu man du yoon waaw yàlla ba tamit fan maa ngi bëgg a dégg man génne daa bari de ma bari na lool. suñu soxna si dem na tukki. bëgg démb la waxoon na day ñëw mënuñ kaa gis ba léegi. la ca des la fi nekkoon nu mu tuddati waaye ak ah, bato. ñu woo ko nekk yaayam gaa xam. ah boobu moom dem ca moom lu baax la ndax yaay mooy njëkk. waaye yàlla baax naa ñëw nii bu ma réewee nii damay dem dëkk.

weer ko de façon bu nekk ngay gis laa wax de ay naan waaye dañuy ñam si weer ko de. yoo du mbokk du xarit. biir buy daw. ay moom dañuy jam jam la ñuy بسم الله استغفر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح اطعم الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر شهاده الله اكبر الله أكبر الله waaye yow booy dugg néeg danga dul fëgg wala sax booy dugg si fekk mooy julli nga toog xaar ba pare jógal ci kaw jógal wàccal ci suuf alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. ba ma fay ñaari waxtu ma faat. fii naa tëdd ndax tàngaay bu bari ak koor bu metti tey tey moom daf maa jàpp du ma ko nëbb kenn koor gi daf maa téye moo tax ma saali fàtte ñaari waxtu. kon julli naa ko kay alhamdulilah. Papa Assane maa ngi ñëw toog fii yaa ngi julli sa ñaari waxtu ba pare waaye Papa Assane yow jàppoo. yow kan moo la jàpp ma. ak Papa jàppoo. jàpp naa sax de. da ngaa génn si douche bi rek ñëw fii jàpp woo de. kii wax na dëgg di man jàpp ma di. jàpp woo de dama génn woon nag rek jógal si directement hmm. ci kaw si jaay waaye tamit nooy toogee ci kaw lal bi janook man masaani kabar ne allahu akbar yow wóor na ne aw ma jàpp doo ma dog sax ne ma moo jàpp demal jàppi. Ah. ma yeesalaat jàpp mi. non damaa bëggoon la li bi gën a bëri rek tiyaaba yi gën a bëri après léegi soo demee jàppuwaat bi suñu waatee dañ lay bind laa yeneen tiyaaba te damaa bëgg sax ngay def sport xam nga soo jàppoon ne sport weeru koor ne. ci biti te weeru koor gi ba weeru koor gi ba koor gi jeex laa la dama ne bul ba koor gi jeex kii mooy baax.